بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع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 ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع ۖ أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك ۖ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد di julli ci Yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gannaaw loolu saar wi ñu jàng moom la ndaw sa wax ne jëlewu ko fenn fu dul ca làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te la ko dégloo di ko déglu di ko déglu ba mokkal ko nee na ndax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da ko daan jàng ajjuma ju ne suy xutba jullit yi ci kaw minbar mooy ne bari na lu mu ko daan jàng ba jëla fa la jaare sax moom far mokkal ku settantal saar wi te xam jubluwaayu xutbaay ajjuma ci bés bii di bésu ajjuma di bés boo xam ne jëmmi teewam rekk fàttali la war a doon mboolem bindeef fii ndax ca lañ leen bindoon ca lañ leen dugaloon àjjana ca lañ leen fa génne wàcc leen fii ci suuf ci la maam aadama alayhi salaam génn àdduna waaye it ci la ñuy taxawal bés pénc yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ñu ne jantu alxamis bu xasee so ñu naan guddi ajjuma ne na amul dara ci bàyyi ma rab yi la dul dafay tiit ba ci xorondom yeeg gunóor yeeg ginaar yi yépp ay tiit naan ndax du suba xanaa doomu aadama mooy sàggan moo tax bésu fàttali la sunu borom defal ñu ko feet gannaaw ba mu ko réeralee ca yahud nasaraan ya ko doon wut yahud ya doon ko dakk dàkk daan ko wut dàkk dal ca nasaraan yi ñoom dal ca dimanche yàlla subhaanahu wa jox ko xeetu yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu doon feet ci ñoom mu leen ca daan xutba ñu ci julli julli feet julli iid comme ni ñuy jullee tabaskeeg korite muy ñaari rakk yu ñuy tari ca kanam ca kaw boole ca xutba mu daan xutwaa saar wi moom sallallahu alayhi wa sallam di ko fàttalee jullit yi di jëfee la ko sunu borom wax ca mujjantelu saar wi bi mu waaraatee fàttali waaraatee fàttali waaraatee fàttali bay tëj alquran la ñu boolee it pour ñu ànd ak moom di ko fàttali ko mu ne fa dakkir bil qurani man yaxaafu waid yow muhammad fàttaleel ci alquran képp koo xam ne rek samay dikk moom mi ngi koy ragal mbokki jullit yi amuñu droit fàtte lu dul fàtte bi nga xam ne sunu boroom moo ñu ko may muy yërmande ci ñun mu di fàtte ñaar la def ci am boo xam ne yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem jéggal na ko xeet wi ba noppi ba mu wax ne rabbana la tuaaxidna in nasina wa axtana mu ne fa faaltu moo ko wax moo ñu ko ñaan loo daldi ne man nag def naa ko yow sunu boroom bul ñu jàppee bu ñu fàtte walla ñu juum yonent bi sallallahu alayhi wa ne teggil nañu xalima bay bind bàkkaar ki fàtte ak ki juum ak ki nelaw mu am beneen fàtte boo xam ne sunu boroom subhaanahu wa taala ko ŋàññi ci alquraanam ji féetale ñi nga xam ne ñoom ñoo tàbbi ci foofu fa boobu façon fàtte alkunde ak toroxtànge ak safara amuñu droit fàtte boobu la fàtte ndax alquran a ngi fii di ñu fàttali moo tax saar wii sunu borom subhanahu wa taala dikk yiw yi nga xam ne moom la tudd ci ñi mu fi tudd ñi texe gannaaw bi mu tuddee ñi texe di dafa tudd ñi texe ba wax la mu leen waajal ca àjjana ya ak xéewal ya ak ndollente sax ba mu leen defal ne lii nag ngeen di di ko dig kullu awaabin xafiir hada ma tuwaaduuna li kulli awaabin xafiir mooy ki fàttiwul rek lii ngeen di dig képp koo xam ne aji dellu la di wommatu di jëm ci yàlla subhaanahu wa taala ndax moom dafa fàttewut xafiid xafida yaxfadu fa huwa xaafidun wa siixatu almubaalaga xafiidun ne képp koo xam ne moom dig ba mi ngi ci biir xol bi mu di ko fàttaliku moo tax muy wommatu saa yu ne di jëm ci yàlla subhaanahu wa taala di waajal boppam di bàyyi xel la koy xaar ak la muy fekk ji ak li ko tiim koo ko fàttewul koo ko xafiid la loolu warta génn ci xolub jaam bi ña ko deful ñooñ la sunu borom subhaanahu wa wax ca saar wa mu doon jàng ba léegi moom yonent bi sallallahu alayhi ci bésub àjjuma ci fajar di ko waaree di ko waaroo di ko fàttalikoo di ko fàttalee naan leen fa duuqu bima nasiitum liqaa yawmikum haada inna nasiinaakum wa duuqu adaaba alxuldi bima kuntum taamaluun bu ñu leen dugalee safara ñu ne fa di rëccoo ak di yuuxu naan yàlla delloo ñu léegi gis nanu léegi dégg nanu delloo ñu ñu dem defi ju lu baax sunu borom ne leen déet yéen kay mos leen ci li ngeen fàtte seen bés bii tey fàtte nanu leen te ngeen mos mbugal mi nga xam ne mbugal mu sax lay doon ca la ngeen doon liggéey ndax lañ doon liggéey yépp mi ngi doon wéeru ca fàtte àllaaxira ak bañ koo sóoraale ba ca gën a rëy mooy fàtte yàlla sax far kooko gën a torox ndax kooko sunu borom da koy fàttaloo boppam fàttaloo ko intérim moom lañ sunu borom subhaanahu wa taala tere ca suratul xashr yaa ayuha alladina amanu ittaqu llaha waltandur nafsum maa qaddamat li gadin wattaqu llaha inna allaha xabirun bima taamaluun wala takunu kalladina nasu llaha fa ansaahum anfusahum ulaika hum alfasiqun kàccoor rek lay mën a doon nee na bu leen mel ni ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm dangeen ngeen wattu yàlla mooy di ko bàyyi xel ci ndigal yi ak tere yi ndax dafa digle te tere neena te bakkan bu ne nay xool lu mu jiital ngir ëllëg nee te ngeen moytu yàlla yàlla day ku peeg la li ngeen di def lépp ku ca dañ kumpale dara ump ku ca te bu leen doon mukk bu leen mel ni mukk ñooñu nga xam ne dañoo fàtte yàlla yàlla fàtte leen nee na ñooñu ñoom ñooy aji génn topp yi mbokki jullit yi al awaabul xafiir mooy kook nga xam ne moom dafa fàttewul man xashiya arrahmana bil xaybi moom tiit yàlla subhaanahu wa taala ci biir xol bi la nekk ba yàlla nekkee ci biir xol bi moo tax ngay gis cir yi di wommatu ak di jëfee luy wane ni kii kat am na ku muy xool ci biir am na ku muy sóor ci biir ci biir xolam foofu la yëf yi déparé wa jaa bi qalbin munib bu nit ñi ñëwee yowmal qiyaam am ñoo xam ne foofa dong la yeewoo foofu dong la doog a gisee foofu dong lañu doog a dellusee fekk ñoom seen xol ay xol yu dellu woon la foofa bu yàgg jiitu ndax bi ñu nekkee ci kër àdduna bés boobu li mu daan teew ci seen kanam di leen defloo di leen bàyyiloo di leen muñloo di leen xaarloo dafa bari lool kooku mooy munib moom la suñ boroom subhaanahu wa taala njëkk a tudd sax bi may wax ci aayaam yeeg melokaanam melokaanam yi ak jëfam yi ca commencement saar wi tabsitatan wa dikra ci ndox mi mu wàcc xéewal yi mu def suuf si mu ubbi génn ci gàncax gi nee na loolu ak gis loola ak fàttali li kulli abdin munib ñeel bépp jaam boo xam ne inaaba mi ngi ci moom mooy foo ko fekk mi ngi jëm ci yàlla amul taxaw am na ñoo xam ne danoo départul am ñoo xam ne danoo départ dem ba taxaw dafa ne matal nanu te al ba taw ba nekk ci biir nit dana ne waaw bu fekkee ne man maa ngi ci yoonu yàlla fan laa demoon bay wàññeeku bay delluwaat ne amul benn maqaama booy toll ci yoon wi lu dul maqaamaa ngi ci kanam ngay xëccu da ca jëm boole koog amul maqaama booy am lu dul ne sa bànneexu bakk na ngeeg yow seytaane ngeeg yow léeg-léeg mu dugal la ci lu mag wala ci lu ndaw ngay yëg ne da ngaa war a delluwaat ci yàlla subhanahu wa taala tuub di jëm ca moom moo tax ci yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam gën a mat leen ñëpp ay maqaama gën leen a mat xaal gën leen a mat biir ak biti nee na man day yéen jaam yi na ngeen di tuub di dellu ci yàlla di ko jéggalu ndax man dinaa tuub di dellu ci yàlla ci bés bi téeméeri yoon dinaa tuub di dellu ci yàlla ci bés bi téeméeri yoon mooy kooka fàttewul mbokki jullit yi am na lu ñu amul droit fàtte ko mooy fàtte yàlla subhanahu wa taala du ci suba du ci ngewan du ci seen diggante toujours yàlla mi ngi ñuy booleeg lu ñu koy fàttalikoo waaye toujours it mu ngi ñuy sant ñuy def loo xam ne day wane ne ñu ngi koy fàttaliku wa aqimi salaata li dikri ne ko taxawalal julli ngir fàttaliku ma wa dakara asma rabbihi fa salla nee na kooku nga xam ne fàttaliku yàlla moom moo tax mu jóg di julli du wut rek nit ñaa ngi fi du wut rek jot na mu jóg këpp këppal ko waaye fàttaliku yàlla moom mooy tax mu jóg di julli ji ndax sunu borom subhanahu wa taala wax yonentam bi ci saar wii bi mu ko waxee yéeféer yeeg la ñuy wax ak lañuy def te lépp ñu ngi ko teg ci dum yàlla ak fàttaliku fàtte ko fàtte yàlla mooy al iraadu wal gaflatu wan nisyaan te ñii ñépp sunu boroom xupp na seeni boroom ci alquran muy ko dummóoyu wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka fàttaliku gi ak fàttali gi yàlla wàcce képp ku ko dum mooy mooy fàtte nga fàttaliku woo fàtte fàttalikuwuloo nee na kooku dina dund dund bu xat àdduna bi ko tax a dum mooyu fàttaliku yàlla àdduna boobu dana ko xatal ba àllaaxiraa gumba ndax li ko yàlla doon wan ci àdduna daf koo gumba woon yàlla gumbal ko fële laqad kunta fi gaflatin min hada fa kashafna anka gitaaka fa basaruka alyawma xadid la subhanahu wa taala mu nga wax ak waaja ca bés pénc naan ko lii da nga cee sàgganoon alxaflatu wa nisyaan nii la def ay doomu ndey lañu ndax ñoom dëddu dikër ñoom ay noonu fàttaliku lañu ay wax nisyaan tudd nañ leen ña fàtte yàlla la mu wax ca ñoom ña fàtte àllaaxira la mu wax ca ñoom soo bañee loola dal na nag da def li yàlla wax yonentam bi sallallahu alayhi wasallam te mu nekkoon ca fasbir ala ma yaquluun muñal ñii li ñuy wax yépp sàggante ak ñàkk faale yàlla moo tax ñu di ko wax waaye yow nag moom wasabbix bi xamdi rabbika qabla tuluci shamsi wa qabla alxurub la ngay ubbee sa balaa jant baa fenk sax na doon di sàbbal yàlla subhanahu wa di ko tudd am na ñu ko teggee wax subhaanallahu bi xam xamdihi am ñu ko teggee julli julli fajar wa qabla alxurub la mujj ci julli gi it la mujj ci bëccëg bi it nekkee loola balaa jant so waa bu jant sowet guddi ñëw it wa min al leyli fa sabbixhu naka noonu it ci guddi tudd di ko naafilaal wa adbaara sujud la ca diggante yooye mooy gannaaw julli bu ne nga di tudd yàlla subhaanahu wa taala kooku mooy awaab kooku mooy xafiid moom fàttewul moo tax muy ñoddiku rek di xëccu foo ko fekk di jëm ci yàlla subhaanahu wa taala zikrullahi warul da tàggook jaam bi ci benn ci ay xaalam moo tax yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam bi gën a matle xaal suñ yaay Aïcha radiyallahu anha nee na kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yadkuru llaha yadkuru llaha fi kulli axyaani nee na moom yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da daan tudd yàlla di ko fàttaliku nee na ci waxtum yépp ci jamonoom yépp moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amul woon fuy senn nee na léeg li gën a tuuti corfet ci li ñuy tuddee xafla ñu koy wax alxayn nee na léeg mu jaar sama xol fa mi miata marra ndax yàlla daf koo bëggal beneen martaba mooy martabay fàttaliku yàlla tuub jéggalu yàlla nee na léeg-léeg li ñuy wax alxayn alimaamu nawawi nee na mooy corfet gi gën a tuuti ci xafla nee na yonent bi ne jaar na sama xol ma jéggalu yàlla lu tollook céeméeri yoon wala juróom-ñaar fukki yoon kon ñun li ñu war a jéggalu yàlla bari na bal suñu jéggalu yi sax war nañ cee jéggalu yàlla ndax jéggalu goo xam ne boo koy def sa xol ba ma nga fële sa xol ba tiitul sa xol ba ragalul sa xol ba tàmboowul ak yaakaar di ko taxawee ci jéggalu yàlla gi ngay jéggalu yàlla gi nga xam ne yàlla nangul la ko moo lay teggil lu bari ci mbugalu àdduna ak àllaaxira yu la tiim di fàttaliku yàlla foo toll ak ci lu mu mën a doon fàttaliku yàlla moo la cay génne lu baax lu mu mën a doon fàttaliku yàlla moo la cay jox sa wàll ba mu mat sëkk mbaa fàttaliku yàlla nga manqué ca sa wàll manqué ca lu bon lu mu mën a doon fàttaliku yàlla moo la cay génne ndax doo ñàkk mu dal la te bu ñu ne bu la dalee rek jeex na yàlla def na zikr mu nekk sa digganteeg fa nga war a delluwaat nga am buum booy jàpp bu dee lu baax comme julli la nga ca teewlu di ci fàttaliku yàlla loolu moo cay sa wàll leneen lu dul loolu amuloo ko ca bu dee woor moom it noonu alimaam ibnul qayyim dafay wax ne ku la gën a bari la lu muy tudd yàlla ci wooram moo la ëppale yoolu koor ku la gën a sàggan ci tudd yàlla ci wooram moo la gën a néew la yoolu koor ba keroog sax nit ki jeexal tàkk ba du ci am dara aj tamit noona la ca gën a nuru sport wala loo xam ne xamuñu ma ba ndax du wax du tudd du julli du ràkk waaye jël ay xeer di sànni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na innama shuria alsafa walmarwa wa ramyu ljimaar li dikrillahi aw li iqamati dikrillah daw safaak marwa nga xam ne du julli as ndaw a ko dawoon ñu di ko daw nga xam ni mën nga koo daw te doo ànd ak sax laab nekkul ci biir jàkka ji sànni ay jamra ñu ne iblis sax la ñuy sànni foofa yooyu la yonent bi seppi waxul sax wër kaaba gi waxul sax labbayka ga ngay wax ndax yooyu leer na naññ waaye yee di nuroog sax leneen nee na wuñ ko lu dul ngir taxawal fàttaliku yàlla subhanahu wa taala lu mu mën a doon ci lu baax borom xam-xam yi nee nañu ko ko gënle mooy ko ëpp lu mu cay fàttaliku yàlla ak di ko tudd lu bon it faw mu dal la faw nga tàbbi ci la la ciy génne mooy fàttaliku yàlla moo lay delloo wàtte fa nga jóge woon baa fu ko gën alladina ida faalu faxishatan aw dalamu anfusahum dakaru llaha fa staxfaru li dunubihim ñoo ñi nga xam ne ci waa àjjana yooyu mu wax ci suratu ali imran ne àjjana yu gën a yaatu asamaan ak suuf nee na ñu ko moom ña ko yàlla dikk mooy almuttaquun almuttaquun mooy aji moytu yi mooy ñi amee taqwa nga xam ni mboolem xéewalu kiiwu àdduna ak alaxira ñoo ko moom mu commencé tudd ci seen melokaan yi di tudd ci seen melokaan yu baax yi alladina yunfiquuna fi lsarraai waldarraai walkaadimina algayda walaafina an innaas wallahu yuhibu almuxsinin di tudd yi nga xam ne moom la ñuy def yu baax waaye pour wan la ne yow doomu aadama nga doo ca dëkk waaw boo demee ca leneen nooy def ndax da ngay gëlëm da ngay mu ne dicrullah moo la fay génne nee na walladina ida faalu faaxishatan ak ñooñee nga xam ni ñoom suñu defee lu bon aw zalamu anfusahum wala ñu tooñ seen bopp dakarullaha fastaghfaru li dunubihim du dañuy taxaw rek naan safrullah safrullah waaye fàttaliku yàlla subhanahu wa taala teewulu ko fàttali dig bi nekk ci seen diggante nee na mooy tax ñu jéggalu yàlla subhanahu wa taala tuub nee na wa man yaghfiru dunuba illa allah ana kan mooy jéggale bàkkaar yi ku dul yàlla walam yusirru ala ma faalu wa hum yaalamuun ñooñu duñu dëgg di dëgër di sar ca la nga xam ne moom la ñu def fekk ñoom ñoo ko tey inna alladina taqaw nee na gaa yi nga xam ne ñoo amee taqwa ida massahum taifum min alcheytaani nee na bu fekkee ab jaar-jaaru cheytaan dafa jaar ci seen kaw day jaar ci seen kaw de tadakkaru fa ida hum mubsiruun nee na dañuy fàttaliku amuñu droit fàtte mbokk julit del bàyyi xel lii di ko laaj sa bopp del bàyyi xel lii di ko laaj sa bopp waxtu wi lay naqari ci sa waxtu bi nga perte na doon waxtu woowee nga xam ne romb na te yow nekkuloo di fàttaliku yàlla di tuub di jéggalu yàlla di fàttaliku dig bi nga xam ne moom moo nekkoon seen diggante te di jéggalu yàlla nag ci nga xam ne am na rupture moo tax sayidul istighfar fort ndax yemul ci jéggalu rek waaye lépp loo xam ne ay élément la yuy war a tax nga jéggalu dafa nekk ca biir bokk na ci wa ana ala ahdika wa waadika mastataatu fàttewu ma dig ba man ko jàpp kooku mooy xafiir mi ngi ko jàpp moom ba léegi daf koo wattu dañuy wax ne boo mokkalee alquran ñu ne xaafir boo jàngee dara ba mu nekk ci biir xol bi fàtteetoo ko ñu ne xaafir wa ana ala ahdika wa waadika wastataatu dafa am loo xam dañ koo digle dañ koo digaale ma jox la ci sama accord am nañu ko dog am nañu ko weddi am nañu ko dummóoyu am na ñoo xam ne dañuy dund di ko fàtte di dem seen yoon waaye nag man maa ngi ci de yàlla li ma mën abu laka bi ni'matika ali yow abu bi waaye nekk ci li ma mën it terewul ne maa ngay manqueel maa ngi def naka sudul noona maa ngi koy reconnaître faghfir lii nga jéggal ma fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta amul kuy jéggale bàkkaar yi ku dul yow wallahi alladi laa ilaha illa huwa nit dinay tarxiis di daanoo ko jóg fekk ne daanoo be ak jóg ba yépp da koy delloowaat ci yàlla subhanahu wa taala bu jógee di yaakaar di tiit di gën a dimbale yàlla di ko sant di ko gërëm bu daanoo di tiit di jéggalu yàlla di tuub gën fuuf koo xam ne ci zaahir moo ko gën a néewle ay daanu waaye fekk xol ba sori na loola ku ca nekk doo ñàkk mukk doo wadd mukk danga nga tarxiisu da nga faqassalu waaye doo daanu bu àgg ci suuf mukk ndax zikrullahi du bàyyi nga àgg ci suuf mukk bu ñu nee zikrullahi nag tasbiix yi tahliil yi taxmiid yi salaatu ala nabi istigfaar jàng alquran yu ca am solo la waaye gën na koo yaatu ndax moom ci boppam moom zikrullahi mahalluhu alqalb su ko defee nag mu feeñ ci yeneen cër yi moo tax julli di nekk dikrullah inna alsalata tanha an alfaxshaai walmunkar wala dikrullahi akbar moo tax koor di nekk moo tax bàyyi li yàlla tere di nekk dikrullah moo tax def li yàlla santaane di nekk dikrullah booba dikr nag mooy jur bi ngay wax ci sa làmmiñ mooy jur bi ngay def ci say cër mooy jur bi ngay xool ci say bët mooy jur ba lay tuubloo mooy jur ba lay yaakaarloo mooy jur ba lay ragalloo bu boobaa nga nekk awaabun xafiid yàlla nañ ko sunu borom subhanahu wa taala def اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك ذكارين لك رهابين لك مطواعين إليك مخبتين أواهين منيبين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة والعيلة والفقر والكفر والنفاق والرياء والسمعة والكبرياء اللهم انا نسالك غيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا allahuma agfir li ummati muhammad allahuma agfir lilmuslimina walmuslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله أجمعين قوموا إلى صلاتكم